Euh, tey nag dañ leen di fas yéene defal euh, ci seen euh, émission petit matin thème bi nga xamante ni daanaka mu lëmbi jamono gi ci wàllum coronavirus waaye nag thème boobu nag di wàllum limitation des transports maanaam su ma nee limitation des transports maanaam damay dem directement maanaam ci côté transport clando yi car yi taximan yi maanaam nag ci biir loolu nag dañuy daal di waxtaanee lépp li nga xamante ne maanaam euh, ci biir état d'urgence boobule ni ko état waxee euh, ci euh, jour discours am boobu bi mu defoon ci palais de la république ci loolu nag dañuy sukkandikoo rek waxtaane lépp li nga xamante ni moo di wàllum transport ci côté ci côté clando yi taximaan yeeg ak car yi ngir rek ñu xamal dëkk gi xamal population bi ana naka la ñuy def rek ngir gën a maintenir boobu application bi nga xamante ni ni moom la état euh, moom la état du Sénégal daal di euh, jël daal di euh, jox ndogal boobu nga xamante ni pour rek lutter contre li nga xamante ni moo di Covid 19 maanaam mbas bi nga xamante ni moo nekk di lëmbay dëkk bi kon nag ki may àndal ki sama naataango ji Henriette Henriette na nga def. waaw maa ngi nuyu maa ngi lay nuyu Sarata di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax waa di la delloo njukkal bu baax a baax ndax li nga. wax nii tey jii waa dama koy euh, firndeer ndax li nga wax président Macky Sall dafa jël ay matuwaayam ci cadre transport beeg dem beeg dikk bi waa damay sawar lool ci euh, tontu euh, ci li nga xamante ne ni moom la président Macky Sall jël. jërëjëf Henriette ci boobu entrée bi nga entrée noonu ci wàllum dem ak dikk bi waaye nag damay laaj ci ñi gën a daal di yaatalal li nga xamante ni moo di côté transport su ma nee transport maanaam yaatu na Euh, dina dem euh, din dinañ touché ci li nga xamante ni mooy ci côté clando yi waaye nag dinañ touché li nga xamante ni moo di côté euh, car rapide yi dinañ touché aussi ci wàllum taximaan yi aussi waaye nag dinañ touché aussi ñi nga xamante ni ñooy voyager ci dëkk ak dëkk ci loolu nag damay àndal ak Henriette laaj ko question bi nga xamante ni mu laal ci côté transport yi Henriette naka nga gisee ci di bi Macky Sall Sall jëlee ab ndogal ngir rek dakkal li nga xamante ni moo di côté transport naka nga gisee loolu est-ce que loolu noonu am na efficacité eh, ci wàllum côté transport est-ce que gis nga ni euh, transport bi bi ko Macky Sall eh, waxee ba tey est-ce que euh, chauffeurs yi chauffeurs yi euh, def nañ loolu noonu appliqué lañ loolu. waa sama naataango Sarata waa dama lay sawar a tontu di la wax ni la euh, le président Macky Sall euh, loolu mu jël ndogal euh, dama ci ànd ak moom ndax xëy na li xamante ne nii mooy aar sunu réew di aar sunu dëkkuwaay muy feebaru bi nga xamante ne nii moo di coronavirus que ak ni ko waxee ak transport bi dama ci ànd ak moom bu baax a baax a baax ndax tey boo xoolee cadre jegelanto bi ak tëncalanto bi lay bañ ba nga xamante nii feebar bi di corona coronavirus day gën di yokk di lëmbi suñu réew loolu moo tax mag euh, le président Macky Sall jël yi matuwaay ci li nga xamante ne moo di wàllu transport bi. jël ay matuwaay ci wàllum transport waaye ban efficacité nga gis gis nga ni loolu dag boobu noonu bi mu ko defee ba tey est-ce que conducteur euh, de de de voiture yi est-ce que ñoom ñoo ngi appliquer loolu noonu parce que daanaka gis nañ euh, ni chauffeur clando yi aussi tamit euh, daanaka appliquer wuñu loolu mettre ñu loolu en valeur te loolu foog naa bi ko Macky Sall jëlee dafa xool santé publique bi santé réew mi parce que bu ñu nee santé. tamit sa euh, ça signifie tout bu ñu nee santé santé mooy tax euh, nga dem di daani doole santé santé mooy tax nga nga nga mën a lekk sax ba suur voilà kon ci biir loolu noonu bi ko Macky Sall euh, jëlee est-ce que chauffeur clando yi ak chauffeur taxi yi ak car rapide yeeg est-ce que ñoom mettre naan mettre nañ en valeur loolu boobu dogal la Euh, waaw saarata man dama naan euh, comme ci cadre dem beeg dikk bi gis nga dañuy yéeg ci oto yi di yéeg ak a wàcc euh, man li ma ci jot a firndeel gum te li ma ci jot a gis mooy chauffeur yi nga xamante ne nii ñooy dawal li nga xamante ne moo di tata yi clando yi maa ngi ciy rendre compte que ñu ngi respecté li nga xamante ne moom la président mag Sall wax ndax dañ nakat la santé avant tout te nit kat wér gi yaramam mooy lépp nee nañ boo dee añ di reer te amoo wér gi yaram amoo dara xamante moom la président Macky Sall wax ñu ànd seeg moom ndax kat maa ngi gis euh, chauffeur clando ak chauffeur yi nga xamante ne ñu ngi ci tata yi di assumer responsabilité bi nga xamante ne moom la président Macky Sall jël euh, ci suñu réew te gis naa ni ñu ngi ànd ak moom ci ndogal bi mu jël ndax kat dañuy aar suñu gox aar suñu réew aar suñu askan aar sunu nekkuwaay su ko defee ñu mën a xeex jàngoro ji nga xamante ne euh, mooy coronavirus mu génn ci suñu réew. waa ànd ak euh, président monsieur Macky Sall ngir rek euh, ànd lutter contre li nga xamante ni moo di mbas mi nga xamante ni di coronavirus moo xamante ni euh, daanaka touché na partout dans le monde partout dans le monde. waaye nag duñu daal di yam ci loolu noonu parce que gis nañ cas yi ñuy gën a yokk te li waral loolu kenn xamu ko ba tey te ba tey daanaka pexe ama ama amagul ci wàllum feebar boobu noonu donc nag ci biir loolu noonu sagam président. monsieur Macky Sall joxe na ab ndogal ngir rek ñu daqal li lépp luy nga xamante ni moo nekk euh, transport yi nga xamante dajo bi nga xamante ni moom la euh, conducteurs yi di di di di def maanaam euh, nit ñi ñu limiter seen place yi nga xamante ni moom moo war a moom lañu ñu war a transporter voilà ci biir loolu noonu ñoom est-ce ngi respecter loolu noonu. parce que man daanaka euh, gis naa am na ñi nga xamante ni ba tey président monsieur Macky Sall bi mu jëlee boobu euh, ndogal ba tey am na ñi nga xamante ni euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi yóbbu ay plus de 4 plus de 5 ci borom clando yeeg. ak euh, ci borom kaarapit yi ndax euh, gis nañ ni chaque jour ñu ngi yëpp ay lu toll quatre personnes est-ce que loolu jaadu na. respecté wuñu li nga xamante ne ni moom la président Macky Sall wax ndax euh, yaakaar naa ne bu ñu taxawee pour aar li nga xamante ne mooy feebar bi nga xam jàngoro ji nga xamante ne moo di coronavirus kon dama yaakaar ni ñëpp a ko war a respecté waaye chauffeur clando yi quelque quel que soit alpha ñoom dañoo war a xam ni dëkk bi ñun ñëpp a ko bokk. dañoo war a respecter li nga xamante ne moom la président Macky Sall euh, wax pour ci mesure préventive yi nga xamante ne nii moom mooy aar sunu sunu sunu réew. Euh, man de damay ñaax chauffeur clando yi chauffeur tata yi ñu jéem a respecté li nga xamante ne moom la président mag Sall wax ndax loolooy aar kat suñu réew. waaw loolooy aar suñu réew mooy aar suñu réew ba tax nag ñun ñëpp war a mànkoo doon benn ngir rek xeex li nga xamante ni mooy ennemi commun bi nga xamante ni moom ñun ñëpp suñu ennemi la ndax euh, mun kenn ku ci nekk euh, jomb la kenn ku ci nekk mën na la daal kon nag euh, boobu jàngoro war nañ ko mën a xeex ànd manque doon benn waaye nag nag euh, ci loolu nag euh, damay daal di poser beneen question beneen question bi nga xamante ni moo di euh, côté ba tey ci côté transport ci biir loolu noonu ci côté transport yi daanaka boo doxee sax léegi nii boo demee ci garage clando yi wala ci garage tata yi wala foo mënta dem di nga fa fekk nit ñi bëri ñu taxaw di xaar ay bus wala ñuy xaar ay clando wala ñuy xaar ay car rapide loolu xalaat nga ni loolu mënuñu état du Sénégal mënul am beneen solution pour mën euh, xaar bu métti gi mu mën a dakk waaw état du Sénégal Euh, dafa jël li nga xamante ne nii mooy mesure préventive yi ne euh, tata yi clando yi euh, jox leen kenn ku ci nekk ci li nga xamante ne nombre de personnes yi ngay yeb loolu moo waral tàncaloo gi ak ak ak taxaw ci arab bi di xaar trop li nga xamante ne mooy oto ndax chauffeur tata yi dama gis ni ñoom respecté nañ trop li nga xamante ne mooy mesure préventive yi nga xamante ne président Macky Sall wax ak ci sama gis-gis te man damay dugg ci tata yi gis naa li nga xamante ne nii euh, borom tataay ñu ngi koy respecté moo waral boo taxawee ci arab bi boo ci xaar bu ñëwee bu feesee day avancé du mën a taxaw di yàpp taxte fu ñu taxaw euh, gaa yaa ngi leen di surveiller de tous les moments li nga xamante ne nii mooy ñu bañ a di surcharger ñuy yepp nombre euh, surtout tamit euh, borom clando yi ñu leen di wax naan leen def leen ni tak borom tataay li nga xamante ne nombre de personnes yi ñu leen jox pour ngeen yab ko ci seen oto de leen ko respecter ndax loolu kat mooy aar suñu réew ci li nga xamante ne mooy jàngoro ji coronavirus. waaw aar suñu réew. ba tey nag euh, damay daal di laal ci beneen euh, transport maanaam voyager ci dëkk ak dëkk euh, ci biir loolu noonu gis nañ ni nee nañ état du Sénégal jël na dak ngir rek ngir rek suspendre li nga xamante ni mooy transport voyager de loin ci biir loolu nag gis nañ ni ba tey am na ñi nga xamante ni ñu ngi jugee ci yeneen réew di ñëw ci di ñëw ci suñu réew te biir ci biir loolu noonu ñoo ngi gis ñu ngi gis chaque jour cas yi di gën a yokk cas importé tey di gën a yokk man nag maa ngi lay laaj yow lan moo waral loolu parce que man je ne peux pas comprendre que ni état du Sénégal joxe na joxe na ab euh, ndogal ngir rek euh, daj lépp li nga xamante ni moo di dem ak dikk bi mais ba tey ñu ngi gis ay cas importé ñu ngi gën a yokk yow lan moo ci sa xalaat. Euh, man sama xalaat dama naan que ñi nga xamante ne ñoo taxaw ci frontières yi la ki nga xamante ne moo di gouvernement bi teg leen fa dama yaakaar ne conséquence bi yëpp ci ñoom la ndax bu ñu nee tëj nañ frontière dikk bi ba nga xamante ne nii kenn du dugg kenn du génn yaakaar naa quel que soit alpha ñoom ñi nekk ci frontières yi nga xamante ne nii mooy euh, ñi nga xamante ne moom la président Macky Sall teg ci yoon yi war nañ ko respecté bu baax ba nga xamante ne dem beeg dikk bi euh, kenn du dugg kenn du génn ndaxte booy xool. Euh, dem beeg dikk bi comme dañuy xeex li nga xamante ne moo di jàngoro coronavirus te dem beeg dikk bi mën na ko indi ndax nit mën na ko jëlee fu sori andi ko ci sunu réew wala ku ne ci réew mi fi jige fi dem beneen réew noonu lañ koy wàllantee kon donc dañ koy jéem a di moytandu bu baax surtout di vérifier euh, li nga xamante ne moo di frontières yi ci dugg beeg ci génn bi. ci biir loolu nag euh, ci côté transport yooyu noonu euh, sagam euh, gis nga ni loolu responsabilité boobu noonu ci ñi nga xamante ni ñoo nekk chef chef ñi nga xamante ni ñoo nekk ci côté aéroport yi ak côté côté transport terrestre bi ñi nekk ci port ba yow gis nga ni chef yi ñoo nekk responsabilité bi waaye gisoo aussi tamit am am na leneen loolu laxasoo ci biir loolu noonu ba tax nag muy am ba tey dem ak dikk parce que mënuma concevoir que ni euh, ñooñu ñu ngi accepter gars yi di dem di dugg di dugg di génn te loolu euh, état du Sénégal mënu yëgu ko loolu euh, lan nga ci xalaat en fait. état du Sénégal que mu ngi def kéemtulaay kàttanam li des kay mooy ñun ñu jël sunuy matuwaay ndax lépp état du Sénégal. duñ ne mën na koo def waaye am na loo xamante ne ñun ñoo koy aaral sunu bopp ndax loo xamante ne bu duggee sunu réew euh, day gaañ ñëpp dañ ko war a di sàmm bu baax ba nga xamante ne ni du gaañ kenn mën daal ci sama gis-gis loolu laa gis daal ci voie routière bi nag surtout gars yi nañu vérifier bu baax li nga xamante ne nii mooy euh, yoon yi nit ñi di jaar fi ñuy dugg ak fi ñuy génn ci frontières yi surtout ñu mettre en garde bu baax li nga xamante ne nii mooy nit ñi di dugg ak di génn ba nga xamante ne ñu respecté mesures préventives yi président Macky Sall jël su ko defee suñu réew incha allahu rabi euh, jàngoro ji di coronavirus danañ ko mën a xeex mu génn waaye kantaan nag euh, voie routière bi ñu ngi bàyyi gars yi di dugg à tout moment di génn que boobaa euh, jàngoro ji day gën a yokk di gën di law ndaxte moment bi ñu toll bu njëkk ñu ngi doon am ay ay 36 cas 90 cas maintenant ñoo ngi ci cent et quelques cas yoo xamante ne nii. on sait jamais te mën na gën di law léegi nag mesure préventive yi li nga xamante ne ni moom la président Macky Sall jël ci voie routière bi nañ ko jéem di respecter ñu bàyyi dugg bi génn bi ñu dal ne kenn ku ci nekk reste fi nga xamante ne mooy ci goxam ba nga xamante ne feebaru coronavirus bi day mën di euh, génn ci sunu réew boobaa nag lu waaye lu neex waaye euh, def. ci biir loolu nag euh, damay daal di poser beneen question daal di la laaj yow ci sa xalaat ci côté population population bi est-ce que aussi euh, population bi maanaam chauffeur clando yeeg taxi yeeg euh, n'importe quel euh, transporteur yow est-ce que gis nga ñu ngi def ci seen ñu ngi gis ñu ngi def seen wareef ci côté lutte contre le coronavirus Euh, waaw parce que euh, da ngay xool euh, boo saytoo di xool di nga gis ndaxte gis naa ci ay chiffres yoo xamante ne ñoo ngi respecté li nga xamante ne nii mooy xeex coronavirus bi ndax des fois nga dugg ci oto nga gis mu sol ay gants takk masque ba pare am benn kii alcool désinfectant bu mu teg ci wetam ba nga xamante ne nii képp ku dugg ci oto bi da nga jéem laal loolu pour désinfecté wu pour xeex li nga xamante ne moo di coronavirus à moment man euh, dama koy gis ci nga xamante ne chauffeur euh, euh, clando yi chauffeur taximan yi ak chauffeur tata yi à tout moment dama koy gis ci ñoom surtout aussi dama koy gis ci yenn buntu marché yoo xamante ne ni gars yi dañuy désinfecté wu di soog di dugg ci marché bu ñu génne aussi dañuy raxasu à tout moment man damay gis loolu waaw da ngay gis loolu waaye nag euh, dama lay euh, laaj euh, sa li nga xamante ni muy sa xalaat ci wàllum coronavirus bi ci côté transport bi sa xalaat maanaam de manière générale en fait. nañu jéem a respecter mesures préventives yi rek buñ ko respecter rek incha allahu rabi euh, euh, lépp dina baax te yàlla ñu fi jëlal li nga xamante ni moo di mbas bi di coronavirus euh, ci kàttan sunu borom ndaxte kat lépp rek. ñun ñoo war a aar suñu bopp jéemoo saytuwaat suñuy doxalin ak suñuy demalin ci li nga xamante ne nii muy di xeex euh, coronavirus bi di di raxasu à tout moment chaque 30 minutes di raxasoo ak eau de javel di désinfecté wu euh, te di moytu dajaloo gi su ko defee incha allahu rabi euh, li nga xamante ne moo di jàngoro ji coronavirus dana mën a génn ci sunu réew fii. waaw euh, dama lay euh, daal di bàyyi rek euh, nga daal di joxe sa kàddu gu mujj nga tàggatoo. waaw man li may tàggatoo mooy di ñaaxaat à tout moment askan wi mesure préventive yi nga xamante ne le président mag Sall jël ñu jëm ko di ko respecté di moytu tàncaloo gi ak dajaloo gi ak di désinfecté wu à tout moment foo tollu del raxasoo ak eau de javel di désinfecté wu di aar sa bopp aar sa njaboot aar sa gox su ko defee. kenn ku ci nekk boo jëlee matuwaay boobu ci sa gox yaakaar naa ni incha allahu rabbi euh, ci kàttanu yàlla ak mbaaxam lii di jàngoro yi coronavirus dana génn fi nga xamante ne nii moo di sunu réew. fii daal di yem ak yéen euh, ci euh, émission bi nga xamante ni moom la naan au petit matin te au petit matin nag fii ngeen koy fii ngeen ko taamu ci TMS TV ki nekkoon ci waxukaay gi di Sarata Aidara àndal ak naataangoom di Henriette kon nag Cheikh internautes damay lay daal di joxe dig daje ci beneen numéro ci suñu émission au petit matin.